seen seetu waali bat yore jëgg xaalis taxaw di joxe ay ay ay ay benn seetu taxaw ñu naan la moo tooñ boppam loolu laa leen bëgg mu leer ci seen nopp yi waaw suin bu na bàyyi titre bi mu nekke te simple te xool xaalis bi muy baatare artiste yi na dem dimbali ay mbokkam dimbali ji ko jege parce que déegi gaaw na waral mbokk suwe bi am na ñu bokkal barki Serigne baaba Si bu taxawoon ci télé bi génn tey wax na joo bokk suwe bi nga bàyyi àdduna parce que war na leen a dimbali mais déedéet du ko def sàmba alaar dem ci artiste yi di baatale te yoroo yow dem ñu lay tàgg ngay génnee xaalis nan te dëgg bàyyi leen naa fekk bi ngeen dimbali seen bokk yi dimbali ñi ngeen jege fexe defar seen famille xool seen doomu bàjjan yi ngeen geesu leen seen doomu maam yeeg ñi ngeen bokkal bàyyi leen complexe ak tiitaru ak def loo mënul te am ñu ko soxla loolu moom mooy wax ji moo humilier boppam. waaw léegi sëñ sëñ Bara. waaw. allo. waaw ñu ngi lay dégg. sëñ bi Adamo di traité kaay yi ba dugg sa cas war nañoo traité cas moom lan moo tax Wally man xam naa bandi gi nekk ci Wally. moom loolu loolu loolu loolu wax naa ci sànq ak Californie. parce que Californie man maa ko woo téléphone waxoo ko ne ko man carrément damaa gis ne. Euh, dañoo dañoo beddi Adamo maanaam beddi nañ ko carrément mais léegi dama gis ne Omaro da laa recruter. Omaro maanaam moo la mhm. jël léegi boole biir Faramaren. loolu wax naa sànq. maanaam. waaw Faramaren yëpp. waaw Bada Bada. waaw Faramaren may ma ma ñëw. may ma ma ñëw kali. faramaareen gi amul ku ni jël di dugal ci kenn faramaareen gi du contrat yow yaa koy sentir. xool ah non Kali moo ko wax de man non man ci li ma li ma dégg ci Kali boss boss li na ko ci biir la bokk moom moo wax loolu waaw da ngay wax la waaw léegi da ngay noppi nag ma wax la waaw gi du faramaareen goo xam a bëgg a dugg si wala ma ma ñëw waaw may ma wax rek waaw d'accord faramaren gi bëgg waali la yow yaay xool sa cofeel ci waali ndax da nga bëgg a doon faramaren wala bëggoo koo doon kali bu sentir ne dafa bëgg dem doon faramaren day dem ne man faramaren la bokk naa ci faramaren yi mais amul du papier bu ni signé naan ko kali da ngaa a looloo ma jaaxal ko parce que kali kali daa nekk ba nga génn a dugg looloo ma jaaxal waaw da ngay ma wax la du papier bu ni signé du loo xam ne dañ ko koy jox ne ko signal ne ko fii nga bokk Ah, duuf dañ ko koy jox ne ko da ngay ñe di liggéey ci waali déedéet waali defalu ko dara moom mooy sañte faramaaren gi moom kenn du ko yebal mu demal boppam ne man damaa bëgg a assister pour dimbali waali wala jàppale waali looloo fa yóbbu kani te kani dégg nga lim leen wax ci biir biiri waxam nee jote jotewul ak Sidi joteel ak Pape Diouf bu Pape Diouf xewlee day dem assister jàppale ko. waaw loolu man maa man maa ko laaj parce que dama gis yow dama gis ne yow da nga far faramare mais da nga daan saaga Sidi di saaga Pape Diouf léegi Kaliphone bu ñëwee xanaa day indi facette bu bees maanaam Kaliphone bu ñëwee du jël yoonu aadama da ngay kat sa day nga noppi nag bari nga wax kattal sa day tëj sa lëfal day li kay faramare gi boo dee laaj da ngay tëj sa bi ñu neppoon la mm-hmm. faramare gi amul lu ñuy signé yow yaa koy sentir ndax da nga bëgg a doon mm-hmm. faramare wala buggoo doon faramaarin ñun nag yàlla ba mu ñu defee ay faramaarin dafa yàgg mais yow sëñ Bada ak laay mu ta cott ndey mi yéen a nar a tas àdduna jaxase kat ngeen seytaane ngeen Kaliphone sama grand frère la sama xarit la mhm. nit ku baax la bu ñëwee ci faramaarin gi damay kontaan parce que nit ku baax la bokk nañ combat bu ne xeex ko jotee nañ nag def nañ lu bëri jotee nañ fu ne mais nit ku baax la. yow yaa taxawoon ne Kaliphone du dellu France. yaa ma gëm loo loolu. yaa wax loolu man loolu laa gëmoon. yow déglu xam nga Californie bu yàggul teeru bi Dakar. déglu ma rek waaw Californie dana dellu France ak du dellu France yow moom di nga yàgg ci tàngoor bi ndax ay sugg su dem ga nga jëlee woon dayu baam yi moom nga doon jël. non non non non débat bi débat bi ko yàq non non non débat bi mais mais débat bi débat bi non dafa nag débat bi waaw débat bu ne ko changé. waaw mais waaw mais dafa nag. waaw bul changer débat bi waaw bul changer débat bi débat bi. ñu déglonte ñu déglonte guddi na est-ce que sénégalais yi dañuy jox seen xam nga xam boo gis daa am retour. boo gis Kaliphone ale boo gis daa am retour. waaw may ma seconde laay. non déglu rek Kaliphone maa ngi ñëw. moom nee na fii lépp di leeree. Mm-hmm. yàlla defal nañ ko ko waaye nag garab ci kaw lay fekkante sëñ Bara daa ñëw toll foo xam ni daa liggéey ba egsi si kaw. ba mhm. suñu ñu. Mhm. Mhm. ba signé ba signé ba signé Feeling Dakar waa déglu rek waa déglu. waa déglu rek waa déglu rek. sëñ Bada sëñ Bada oui ma sëñ Bada vie yi mu am nii yëpp li ma fi yéeg a tax sëñ Bada xam na man maay kan. non déglu rek déglul déglul. waaw waaw damay déglu waa Adama. ngaa saytaane nga naan sëñ Bada. waaw mais day waxtaan. sëñ Bada yow maa ko booleeg ay nit ñu jël ko ci télé bi sëñ Bada di am dóorkat bu mag. bu ko Sénégal xamee man maa tax ngay wax sëñ Bada fu mu toll. non non non toll fenn. waaw déglu rek ñëpp man maa tax ci lay waaw bu ñu dégloon teewul waaw dañu dégloon rek sëñ Bada waaw dañu dégloon dañu dégloon te xam nga dañuy déglante xam nga ku la jiit si néeg bu lëndëm moo la gën a mën a mën a mën a mën a wax fi ngay toog Mhm. man dama xam waali bu baax. Mhm. yar ko xam ko baax moo dafa ñëw fekkee nekk fan. yaayam yaayam ko yar papa ci waa déglu rek waa déglu waa déglu sa day sa dund sa manipulation bi di jàll. waa Californie loo dayu waali. waa waa Californie boo yaroon waali da ngay tekki dara. saram day tekki woo ko ci waa Californie. mais pourtant boss mën nga mën nga déglu nag. waaw mais ak papa Thion def ci moom xam ne moom ni mam. Californie bu ñu dégloon tee waa mais il faut ñu déglu Kaliphone ki nga war a wax mu déglu kay moom la. xam nga xam nga xam nga la nuyoo laay laay maa ngi lay nuyu. waa ñu. <laughs> dama bëgg sénégalais yi mhm. jël seen temps. di ñu déglu ñu jox leen respect d'abord. parce que télé yi ñu ngi live rajo yi ñu ngi live ñeneen di live bari nañ ñu bàyyi ñëpp ñëw fii dañoo bëgg déglu xam. waaw donc bu kenn di wax na kenn wax ba noppi keneen ki doog a jël parole bu ko defee nit ku ne bu fi jógee rek dina am lu mu yóbbu fekk réeroo amul. mais dëgg la Kaliphone xam nga yow. sa yoon waaw sa yoon man xam naa ko. yaa ngi sa yoon. tey bi ma duggee Paris rusloo nga ñu bëri. Hmm. Issa may déglu aara moom mm-hmm. i mujjee génn rek sànq wax na ni lu tax ñuy jëkkati passeport diplomate di ko pasar pasaree di la ko jox te yow sénégalais nga dañ la ko war a mm-hmm. kon ni ñu joxee parce que passeport. muy ambassadeur Californie di ambassadeur. waaw waaw day waxtaan rek dañu waxtaan. xam nga ambassadeur la passeport diplomate. lenn dong la mën yéeg vol wàcc. dëgg la passeport diplomate doo ko yor ba dem ci compte bi fekk fa xaalis. Uh-huh. yéeg ak wàcc rek lay lay la ko di. on revient on revient sur uh-huh. sur sur sur notre. ci sama kon tey léegi dama. rek attends tey jii. laay may ko benn minute Kaliphone may ko mu wax rek day waxtaan. Wally nit danga war a xam jikkoom mooy kan. Uh-huh. bisu waa Adamo daa peese boppam ci diggante mu Wally bi mu peesee diggante boppam moog Wally man xam naa Wally mhm. lépp lum la may bu ko mënee dindi bu subaa da koy da koy dindi parce que jikkooy booy Pikine la yor jikkooy bandi la yor parce que ñun ñoo ko formé mhm. Adamo dafa wax benn wax boo xam ni mu Wally dafa fals dafa faux te Wally du baale te wax na ko émission nii su ma la jekkoo duma la rey dama la waree daan sax du ma la daan dama lay téye di la pamti pamtee di la maajloo boo sonn duma ma sonn. te uh-huh. gis nga tey man xam naa ne tey Adamo li des ci dundam ñaari yi rek bu fekkee gëm na boppam. day samp ndëndëm ni waali sampoo ndëndëm bu ne un mu ne deux parce que yii muy def yëpp di créewaat di dal ci kaw gaa yi kaa bi du loolu parce que moom dafa am kaa spécial diggante moo waali instant bi mhm. Sénégalais yi di xaar image délégué Amar génn ni bu gisatee Wally way délégué Wally way Adamo ci kaw seenam mu bàyyi ko. Mhm. incha ak Baye Zal ak ñoom Baye Zal ak ñoom ñëpp am voilà léegi nag dafa am jëw Wally boo xam ne amul wax man Adamo li ma koy laaj mooy moom li ma ko bëggoon laaj parce que day traité cas kon boo xamee kaa ñu koy traité nga nekk ci dëgg da ngaa war a bàyyi nga am réponse joxe ko. Uh-huh. isamu la nga am réponse joxe ko léegi nag man li may xaar néew ma waali bàyyi na ko waaye man li ma xam ci waali mooy ah sénégalais li ñuy xaaraat mooy diggante waali ak aadamoo ñu àndaat ñu mel nañu meloon isa waali way ko man loolu laa uh-huh. ma du am waaye man nit ku nekk danga koy seedeel jikkoom uh-huh. samay déglu geeru aadamoo ak waali geer boo xam ne sénégalais yépp ñu ciy bàyyi xel waali nag du wax day jëf Mhm. sooy bu sooy bu bi ñuy wax noonu sooy bi li mu bëggoon waale day sóobis sooy bu du sóobis. dëgg la loolu kese la li mu bëggoon am na ko. am na ko. am na coow xaalisam demul bu fi yemoon sax neex na nañ ko léegi nag moo tooñ ak du tooñ lépp ci sóobis la isa ma déglu. mën nañoo àndaat rafetalaat ko war ne ko lii mooy sóobis loolu du kaa. waaye aada mhm. moo nekk cas boo xam ne ci deux mille vingt quatre bi diggante mook Wally jeex na lan la war a mujjee ma loolu laay laaj ak lan moo ko war a tee dem Paris du dem waa du photo de Kaliphone nañ gis mu photo wu mais moom doonul photo wu ci àdduna léegi yaakaar naa ne mën naa jël parole bi non non yow laaju la def Kali say mbir de ñëwal kon waaw pare nga lay da ngay wax da ngay wax nga bañ a saaga comprendre nit ñi comprendre. non non xam nga lu tax may saaga déglu ma. non bu jarul saaga boo saagawee rek doo nekk ci déglu waa déglu ma rek. bu mm-hmm. déglu ma rek sëñ Bada ak Ablaye ñi ni liggéeyal xam ngeen leen bu baax jëruñu leen di wax. ñu nu ah, jaxase saytaane mm-hmm. la di wur may ma ma ñëw. Mm-hmm. sama diggante ak Waly waaw man de borom concert bi laay topp nga xam ne maxu suba teel le deux le deux mars lay tëggal Sidi Sidi Diabaté fii ci fii ci Cissé le deux mars deux mille vingt léegi da ngay sama diggante hmm. ab Waly ab laay laay gay sa yónni wu ci euh, sëñ Bada sa yónni wu ci Waly hmm. bu ñëwee su ma neexee ba dem su ma neexul ma toog maa moom sama xaalis kenn fay. mais saa bu masaana ñëw da ngay dem boos. déglu ma rek non non bu ma amee jot laay dem. su ma amee non chaque jour da nga naan dem moom damay nekk samay business damay nekk samay business bopp su ma neexee dem su ma neexee du dem. li ngeen non liggéeyoo nga boos bu waxtaanee wax dëgg lan mooy seen arrangement. waaw mooy Wally ah, ba Adamo bàyyi Wally Seck Wally Seck ak Adamo ñu xulloo ngeen mën a am buntu pour di dal farambaane. mais loolu yaa ko créé yaa créé loolu. du ma arrière mètre déglu ma ma arrière mètre du ku ko ci wax loo ci wër ta wax ma xar sa data day damay gisanteeg du ma wayeeg damay wayeeg loolu bu leen ko liggéey seen yoon di wucc en tout cas a wax mooy maa ngi ci farambaane gi. sëñ Bara sëñ Bara sëñ Bara sëñ Bara sëñ Bara sëñ Bara sëñ Bara. waaw léegi li ma la mën mooy. Adamo yu njëkk ya ak vidéo yu njëkk laay xaaratu vidéo ak ak wayu bay boo mu yem ci xam naa ni gaaw a ñu ne ko sama rakk yu bees yi 2024. yaakaar waaw lay nuyu. ok ginnaaw bi leen dégloo sama gars yi ñu déglante rek. parce que dégg naa fi sànq lay ne Kaliphone dafa dugg farama bon après gars naan contrat. foog naa Bada yaa ko wax Adama ne contrat de waaw waaw vidéo ni nga ko waxee ni nga ko waxee rek noonu laa ko waxee yow yaa ne bis ni ki tey na la contrat ma ne ah kon comme léegi dañoo dàq Adama moo dem jëli Californie moo tax man ma kontaan ci parce que man kontaan na ci Californie ñëw gi nga parce que yow da nga responsable da nga mature doo saaga wala boog doo tooñ boog doo tooñ kat waaw léegi léegi ah. encore une fois man Wally Ballago Seck amul nit problème ñu woo ma ne ma kali kaay sakóoru wala kaay jàpp suñu combat amut loolu dam ko bëgg leeral d'abord waaw man magum jëmm laa Sénégal laa juddoo màggee fa yaroo xam naa woykat yëpp mm. xam naa leen ñoom ñëpp kuma ma si gis tamit respect nga may jox yàllaa ko def sama diggante ak ñoom mm-hmm. mujj bi Wally Ballago sek ba may mujj gisante ak moom benn béréb la ñu taxaw yëgu ma woon sax dafay concert mu ne ma Kaliphone lay may badju ngoon mooy 31 décembre si la ne woowal mbay si moom a personne moom ko keneen boole maak waali ma yëkkat sama téléphone woo mbay si mu ne Modou noo dérangé ma ne ko waali mbay si jotuma ko mu toog am ñu muy waxtaanal muy dem mu ne ma Kaliphone nañu dem mu taal otom ma taal sama moto topp ci ginnaawam ñu départ dem ba Grand Théâtre mu woo Njaga ne Kaliphone mais joxal ma ko badge kanamu ñëpp ma uh-huh. ñëw njaga yëkkati budget jox ma loolu day wane ne que Waly Ballago Seck am na yëg-yëg ci Kaliphone Sall. dëgg ma toog jamono jii ma déglu si réseaux sociaux yi Waly Ballago Seck dafa bëgg disque door te disque door bi la koy andi communication bi daf si bokk disk d'or bi la koy andi mooy ne. Sénégal mais du ay saagay ndey communication du ay saagay ndey. xaste may ma tuuti s'il te d'accord ma xam ma xam disque d'or bi lu ko nar a andi ëllëg. Mhm. mooy nañu wax sénégalais yi dem leen ngeen dugg si Fnac yi ngeen dem jënd ay CD bu ko defee nombre de CD yi ñuy jaay si loolu la ñuy xam pour war a mën a jox waali disque d'or bi. Mm-hmm. man yàlla seede na ma bu ma duggee si Facebook bi di live sénégalais dinañ ma déglu ak si TikTok bi. ma ne mm-hmm. pourquoi pas ma jël sama volonté bopp. dem mm-hmm. gis Wally Ballago Seck pour ñëw taxawu ko ci wàllu jàppale ko ba mu am disque d'or nekk ci wetam pour liggéeyal ko. dëgg la ñëw ma ci côté Wally Ballago Seck pour fecc ñëw ma ci côté am pour di ko sibooru ñëw ma côté am pour. di wër mille francs mu may jox. déedéet di photo jàppale ko ci mbir communication lu mu def ñu koy fësal. ba ma demee ñu ne ma Wally Seck ñëw na pari te yàlla dogal na ma ñëw pari ma déplacé wu ma laajte numéro Umaro ma woo Umaro mu ne ma ñu ngi hôtel sangam ma dem déplacé wu dem ba foofu. ñu mhm. toog di xaar Waly jour boobu Waly dafa am si lu mu nekkoon ñëwut. ñu ne ñu donc ba demee man sama yeneen i morom mot nañu cinq personnes. le lendemain tamit ñu demaat toog ba presque vingt trois heures finalement waat waali naroon na ñëw mais liggéey moo ko jàppoon jut ñëw. ma ñibbiwaat ñeneen ñi ñibbiwaat. le mhm. lendemain ma toog sax di live sama page Facebook ndeke ñoom ñu ngi may woo téléphone. Mhm. bañ ma woowee téléphone jotuñu ma. laa pare mhm. jot seen ay audio ñu ne ma Kaliphone Waly ñëw na yow rek la ñuy xaar. ma gis nag mhm. vraiment yëg-yëg am na. parce que Waly mënoon na ñëw même bu fa Kaliphone nekkul gars yi wax lu ñuy wax dem fu ñuy dem mais dañoo ne Kaliphone yu ngi lay xaar. si laa jël sama oto dem ba fu ñu nekk ñu ne Kali yow rek lañ doon xaar léegi mën nañu woo Waly mu daal di agsi si la Mariasine agsi ba mu agsee it Mariasine kenn du ko présenté Kaliphone. en personne mu desal ma eh accolade ak man kontaan xam nga ñu toog ba ñu toogee tamit waxtaan wax dëgg fa yàlla wax naa ko sama live Wally Ballago Seck newul kenn xulool newul kenn saagal newul kenn yàqal ma beneen artiste wala beneen promoteur. moom ngay saagakat yëpp dégagé na leen. lu mu wax am am léegi benn déglu ñu ngi may seetaan du ma naafeeku kenn. Wally Ballago Seck dafa ne ku am li muy wax boo sëggee si man fii ba l'an deux mille trente cinq doo ñàkk loo wax. parce que chaque jour maa ngi woy lu neex chaque jour maa ngi génne ay CD chaque jour maa ngi génne ay son yoo xamante ni war nañ ko mën a wax sénégalais yi loolu rek doy na liggéey. donc mhm. ñu topp ko pour liggéeyal ko si loolu. Mhm. dugguñu si benn live pour xas benn sénégalais. dugguñu si benn live di wax si Wally Seck. yow kay doo def loolu. encore une fois yow kay def loolu kenn lay def loolu muy Adamo. te dàq na ko boo gisee ma ne na ma. waaw dam la bëgg a wax maanaam bu ñu nee Kaliphone mu ngi bëgg ñëw pour nekk wet Wally bu neexutoon Wally Wally dina woo ñoom Omaro nee na du ma toog ak Kaliphone mais ba mu yegee Kaliphone nga ko doon seet ci boppam ba mu ñëwee balaa muy waxtaan ak yeneen gars yi ñu ngi ni toog si laay bi di seetaan dañoo ne foog Kaliphone ñëw bu ngeen hmm. xoolee sama vidéo tamit Wally mu ngi doon expliquer ma ne ko Kaliphone bu Wally moom en personne mu ne Wally Wally mënoon naa Kaliphone bu waali mu ne non non non bu waali amut wala c'est trop wala lii wala laa mais bu ngeen xoolee vidéo bi ma def ak waali dama ne Kaliphone waali mu ne Kaliphone waali waali waali waat loolu day wane ne kon waali signé na sama accord Kaliphone ma laaj la question bi nga xamante ni moom dëkk bi yëpp moom la ñuy